Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah donc tey jii nii dafa euh, samedi 23 décembre 2022 ñu amone conseil municipal wara voter budget budget Géoul pour 2023 euh, vote bi nak jaar na ci yoon machallah conseil laaj nañ ay question dal na préoccupation population bi mais yalla def na di indi woon lépp fekk na ñu tëgg ko ci ci budget bi budget nag comme ni koy waxee prévision la maanaam xayma la rek ni su amé na def pour ko def comme comme nit ñi école privée dafa terrain bu terrain conseil municipal voté pour ñu jox ko école privée bu privé bu pour pour que suñu doom ci euh, bi tamit voté li plan d'investissement annuel plan d'investissement yooyu maanaam lan la na xayma investir ci géewul ci lu jëm ci wàllu ay tabax ak jumtukaay yoo xam ni bokk la fonctionnement loolu aussi voté nañ ko ci jàmm ak benn terrain boo xam ni ci kanamu armée yi lay nekk euh, ñu war fa def mbaar pour bu yenn xew-xew yi amee euh, nit ñi mën a nekk ci suufu suufu kër gi loolu monsieur le maire xalifa ja moom moo ko bëgg a def ci ci xaalis boobu

année paisible 2023 euh, année bu am jàmm salaam wér-gu-yaram ak bépp xew boo xam ne ñu koy sàkku yal na ko yàlla defal bi jaay Seydina Diop. amiin jërëjëf.